masiba ak balaa daal di mel ni lu wàcc ci sunu réew mi di Sénégal fan yi saaboo xëyee di dégg lii di ak collision maanaam mooy ñaari oto yu daal di mbëkkalante saa bu mbëkkalante amee sax ay bakkan yu bari dina ca ñàkk bi nga xam ne bii moom mooy bi ci jiitu woon moo doon amee fii ci six kilo ba lu toll ci ñeent fukk ci aw nit daal di ci ñàkk seen bakkan ñu ko doon jooy noppeegun yeneen accident daal di ne xusaat bi nga xam ne bii nag moom la ñuy njëkkee moom moo amee fecc ca sàkkal ca sàkkal nag lu toll ci ñaar fukk ci aw nit ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci benn ab accident boo xam ne bii la ko waral mooy ab collision maanaam ab oto bu taseek benn ab camion oto ba nag ñu koy woowee ab njaganjaay orel moom it dafa taseeg li nga xam ne bii moom mooy ab camion ñu daal di def mbëkkalante ba lu toll ci ñaar fukk ci aw nit daal di ci ñàkk seen bakkan réew mu Sénégal fan yi nii accident yi lu tolloo ko juróom benn fukki nit ci lu matul ñaari ay bis daal di ci ñàkk seen bakkan mu nekk nag ay accident yoo xam ne bii yu jégee jégee dayoo la lii di état bi war ci gën a mën a jël matukaay